أعوذ بالله bismillah الله إنا ولي الله وما توفيق إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki juliti mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara xana indi won fi ndariñ lu am solo am solo lol ba yegg ci lol muy lo xamne serigne touba wax ne kep ko ku ko wax ñent yoon sa yaram aram na safara muy baat ملا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الله أكبر كون بات يوي نيوك كوكو واخ نينت يون سوني بروم ارامال تيو سفرا كون نجارين ديس كوي ياتال كون نيغي ساك كيب كوكو جور nga fexé mu yaatu ci mbokk julit yépp ndax ñëpp lañu yéene aljana kon nak Euh, rawatina li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax muy jullit bu nekk lu mu yéene boppam na ko yéene mbokkam kon loolu rek lañ sukkandiku ba tax ñu wax ñu yaatal ko bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf